ko doon laaj yëgsi na jaaxle jeex na location day jeex ci mim réew ak social shopping immobilier indi leen ay parcelles ka fa la cëmbee nekk ci région de Dakar quelques kilomètres de Lac Rose Quand ngay prononcer rek daal di dugg ca VDN 3 bi waaw li nga neex ba dak neex tek ci nak parcelle ay prix yu imbattable prix yu xéewale malaka wax de type de papier délibération mairie. ci social shopping immobilier ci xéewal rek lay dox kon nak woote leen gaaw ci 77 417 77 40 wala ci 33 835 08 67 mani mbéy ku fa am ay parcelle loy wax neex dimbalante amna solo ci jamono ju ñu wala mouvement bidi di ande qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux d'ara, mosquée djuma école prison pouponnière et internats. donc yo mi may si tu veux vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange monnaie sur le numéro 78 433 44 51 Le mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 Ande Dibolente, Amna solo Thank you. d o i n o know. ay ca Sénégal ku doon laajte supérette bu yoboo noppalu ndax supérette si ñëw na nekk Cambérène tali Njaga Mbay gën leen ko préciser nag fi nga xamante ni fa la clando di tourner maa la ko wax de supérette bu bees tàq la te am tawféex lépp loo xalaat nag ñu nga koy jaay ci biir poulet viande jambon poisson les la ñuy jaay ci biir Amna timit gelato et biscuit am crème glace am nutella biscuit lepp ñi koy jaay ci bobu les supprette Néna la batay ci walum jus amna am lait wax am na pur am na soow nag bépp boisson boo soxla it amna na fa am ay caakiri am eau minérale Fofu dal am na dafa taw ndax supprette al firdaus lañ ko tuddé. ci walum légume timit am fa waaw waaw am na biir luy xétu légume rek am na fa ñoom pomme de terre rek et eh, lépp am na fa laa la wax ci biir batay Mom li nga xamanteni mom modi supret al Firdausi. amna yit li nga xamanteni mom modi transfert d'argent manam multi service waaw waaw wave orange money kepa western ria Monogram lepp Amna ci bobu le supret bu la nexe itam nga tok sa keur xolal numero yoy di daw ci souf nga def sa commande lu la neex gars yi livré ba fa nga nek fo meunti nek neena la bi supret bu bes takal ken du ko am di joy doko gis di wori ka fa dugg jaaxaluma de ka fa gula ma yem gaay ñew leen way ñew leen xol li nga xamanteni ni modi di supret alfirdausi supret alfirdausi nak neena alamanga la ma nga sedd guuy guuy guuy gis nga yow fofu bo fa duggé da ngay melni ku ne aljanay firdawsi dañ ko climatiser ñak mom do ko fa indi tet bo demone ci all bayit ba ñak toy xib da ngay dugg rek sedd guuy fiix ma fa ne amul ci bi le place naw alfirdausi njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cenn mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy posté si sunu page bii di social shopping immobilier beaucoup de faits, Yen, ngeen ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër ci